étudiants yi xam ngeen ne Guinguinéo am na ay doomam yu nekk fii à Dakar di CLGO étudiants le 29 janvier 2018 à 20h45 Alpha a fait un déplacement chez les étudiants Fui, en étudiants yi logé man ak mom ñu àndoon bi ñu demee keroog yaram dafa daw amuñu ay matelas yu ñuy teut situation condition de vie yu doy war mu waxtaan ak ñoom c'est bon parce que étudiants une dette amone 600 000 francs parce que dañ len warona guenné mu fay 600 600000 francs pour les étudiants de Guenguenew qui sont à Dakar jëndal len 26 matelas double lit 3 3000 tickets ba bañ fay fait kélok étudiants yi étudiants wax né dañu bitanti lolu def nako ci étudiants euh, donc euh, jox aussi à chaque fois bu étudiants yi war a euh, Dakar pour ñëw tabaski à Guinguinéo daf leen di jox bus vraiment mu doon lu am solo donc gis ngeen li mu def ci éducation euh, bu ñu jëlee santé bërki Dembo Ndiaye ci morgue bi demoon nañu ba ku ci am néew da ngay dem jënd ci glace mu doon lu doy waar pendant des mois et des mois bi ñu ko waxee Alpha euh, mu mu jënd deux climatiseurs installé leen. Euh, en faisant venir de Dakar des techniciens qui ont installé dans le donc domaine santé beaucoup santé dotation en médicaments euh, chaque année nous organise une journée médicale au mois de septembre avons le euh, comité de santé des médicaments dans le domaine social chaque année de jox et bus pour le Magal de Touba, pour le Gamou de Tiwawon, de Ndiassan et de Medina Bay. Pèlerins dem ci jamu depuis pratiquement cinq ans alpha mi koy euh, au courant du mois de Ramadan euh, day distribuer des denrées sucre riz date euh, ci population bi Mon également Pour nous autonomisation des femmes ku Diamonedi, lu faam yi bokkul baaxul euh, lu faam bokk nak ca kaw ca kanam ca lu gën rek lay dem bi comprendre loolu euh, mu doté len en machine de transformation de produits céréaliers d'une valeur de 2 millions 500. Machine machines installé nañ ko pour commencer na voilà euh, fayal len également 26 récipices à des groupements de femmes ginnaaw euh, dembou la famille paraît également une formation en gestion de projet parce que du le fait que ñu yëkkati xaalis jox la c'est une politique qui est dépassée et déphasée Alpha veut amener une politique de développement bu nga xamee ne bi ki ñuy jàppale dañ koy jox ay possibilités ay moyens former ko bi nga ne day gérer boppam de dembou le en collaboration avec euh, le Crédit Mutuel du Sénégal nous devons une formation pour la gestion des projets donc nous les femmes tout comme les jeunes d'ailleurs sans tension euh, les jeunes également nous nañu euh, ñaar fukki également en matériel de nettoiement hein, pour euh, les associations n'est-ce pas euh, génie formé dans un tamit pour en gestion de, de, projet. Dans le domaine du sport, pour terminer, nous avons le sport qui intéresse un Ndawla. Euh, 14 AEC, associations sportives et culturelles, qui depuis pratiquement 7 ans, Alpha, chaque année, il y a subvention. Il y a 14 AEC, il y a 1 400 e, euh, 400 francs. 300 euh, 000 francs à l'UEG, à la Croix-Rouge et aux arbitres, euh, soit une enveloppe de 1 million 700 francs depuis pratiquement 7 ans Alpha Minka dans le domaine du sport. Euh, réception, réflexion également du nouveau stade. Nouveau stade bi première tranche bi mou terminer ko wara pour terminer ko. Malheureusement municipalité bifanek fa nek ko la tax mu bloqué ko nak ñom ñoko xam mais liñu constater dal daal amoon na yéene terminer stade bi mais dañ ko bloqué amoon na yéene également terminer complexe frigorifique bi nek fofu moy usine euh, usine glace bi lolu également dañ ko bloqué kon dal buñ doon euh, def résumé euh suma doon wax né Alpha moy kan dama koy résumé ci ñetti baat damay wax né Alpha moy ki doon maire te tànn te euh, nommé guñ ko maire wala guñ maire Alpha moi, qui donne maire de que guñ ko maire parce que dafa jëf jëfinu maire Quand am nañ un ne bis bu yàq yàlla defee mu def maire danañ fàtte kullu maire parce que déjà les mu est éligé en commune mixte en 1952 commune de plein exercice en 1960 euh, département chef-lieu de département en 2018 mais l'unique xam ko ci li ñu fekke musuñoo gis koo xam ne bii nekkaguloo maire réaliser lii Alpha def kon dañu koy ñaanal yàlla miy borom lépp fépp te mën lépp yàlla na yàlla def mëbët bi mu am ànd ko ay doomu Guinguinéo ak ay papaam ak ay bàjjanam yàlla nañ ko yàlla permettre ñu réaliser ko yàlla na mën na ko yàlla na ko yàlla def. si El Hadj Abdoulaye euh, di yàlla yàlla na yàlla nangu ñaan yi. auzu billahi mina sheytaani rajim gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente tedd gi sallallahu alayhi salaam di sant suñu ay waajur di ci jiital sama waajur El Hadj Malick Sy borom ngi neew sama papa Mansour si sama yaay euh, Adja a Touré di nuyu sama genn wàll gi fi toog fii di doomu adoptif ci Guinguinéo euh, Zara waaye tamit di nuyu bien sur ki nga xam ne ñëpp xam ne nañ ko di ki nga xam ne moo doon meeru Guinguinéo ñëpp di fàttaliku ay jëfam ci Guinguinéo ak ay réalisation ci Guinguinéo ci suñu papa Ousmane Galagna dinañ ci ñëwaat ku lim jum nag xam naa ne ñi nga xam ne lii mu leen dinañ ma jégal waaye foog naa peut Euh, une correction rek euh, Abdoulaye bi ngay wax ci ñi nga xam ne ñi ngi woon ci salle bi xëy na dafa ñëw après cité woo suñu papa Zakaria Sall ñëw fii di euh, un digne fils de Guinguinéo ku bëgg a Guinguinéo ku liggéey liggéey bu am solo Guinguinéo foog naa ñeneen ñi cité nañ leen xam naa au fur à mesure peut-être dama sama intervention bi dinaa ci ñëwaat di leen wax ne bugguma woon sax ñu am format bi li ñu doon li ñu jublu woon Alpha Thiès ñu ngi lay nuyu <laughs> li ñu jublu woon ci tey ndaje bi mooy saafante waxtaan xamante tamit parce que tey candidat la pour mairie Guinguinéo ngeen di ay doomu Guinguinéo sans compter évidemment suñu ay yenn invité yi nga xam ne xëy na du ñu waa Guinguinéo mais mun naa ne euh, ñu bugg Guinguinéo la ñu moo waral ñu ñëw fi tey donc lii taxoon li motivé woon lii rek mooy ñu mun a xamante saafante commencé xool euh, li nga xam ne moo jublu mooy ñëw suñu kanam di élection yi mais du élection yi rek ak lii ñëw gannaaw élection yi di tàmmali di sant yàlla comme ni mu ko waxee bu baax a baax ndax tey le 30 décembre ku ñëw agsi ba 30 décembre moom da ngay daal di sant yàlla li li nga fekkee parce que bëri na suñu ay papa suñu ay yaay euh, suñu ay mbokk yoo xam ne génn nañu àdduna ci année bi année di année 2021 mu doon année bu metti nag mu doon année bu métte métti parce que gis nañ fi loo xam ne nit ñi pare wuñu woon ci loolu mbas bi bi mu ñëwee foog naa 2020 euh, dugg fii 2021 ba léegi ñu ngi wax ay problème mu troisième ak quatrième vague donc bu ñu egg ba fii dañ ci sant yàlla waaye tamit di euh, xool nu ñuy def ba euh, war a mun a dugg ci 2022 ak yaakaar bu rëy li nga xam ne suñu borom mi ngi ñu koy dencal di euh, wax ne lu mu metti metti nit ki ja jullit gi wala jaamu yàlla walla doomu aadama da nga xool tamit li nga xam ne suñu yàlla suñu borom jox na la ko mais année bi metti na waaye ba léegi espoir mi ngi fii ci Sénégal espoir ngi fii ci new gis nañu euh, ci biir bu ma jëlee Guinguinéo rek ci année bi ay yenn jéego yoo xam ne ñu ngi koy gis yenn changement yoo xam ne ñu ngi koy gis ci biir Guinguinéo euh, am na ay tali tali bi nga xam ne ñu ngi koy defar pour ñi nga xam ne géjuñu gëjuñu new ci biir année bi am nañ fi ay lampadaires solaires euh, ñetti téeméer lampadaires solaires yoo xam ne installé nañ ko euh, ñi ngi tàmbali autoroute bi buur Kaolack te xam nañu de am na benn sortie boo xam ne xel Xelkom lay génne donc yooyu yoo xam ne dañ koy rafetlu la te am yaakaar euh, nde suñu suñu gox dina mun a ndànk ñu mun avancé jëm kanam comme yeneen gox yi yeneen gox Sénégal yi comme Sénégal d'une manière générale parce que tey Sénégal ku dégg Sénégal di nga wax wàllu pétrole ak gaz loolu mi ngi fi xam nañu ne pétrole bi foog naa sama frère yi wax nañ ko man am na loo xam ne euh, yàlla dénk nañ ma ko ci euh, donc am na comment ni ñu ko waxee rek euh, ay raisons yoo xam ne war nañu mun a espérer et nous, une vision déjà, nous avons 9 neuf axes de yoré. Neuf axes comme 9 compétences de, euh, transférées. Am 100 points d'action. Parce que l'action, nous permet de dem. Donc, am 100 points d'action. De Nenkoyore présenter, je pense que le 3 janvier, le nous retenir. Mais nous allons des filles Dakar. Parce que des yombo. Gengine, on a des filles. Et nous avons des filles, nous allons des filles, le 3 janvier ñu daje Guinguinéo ànd ak waa Guinguinéo yi ñu expliquer leen lan mooy suñu programme pour Guinguinéo bu bees bi nga xam ne moom la ñun ñëpp donc c'est mais ma kii leen ci tuuti rek programme bi ñu ngi koy tuddee suqali Guinguinéo programme bi infrastructure dina ci bok, écologie environnement dina ci bok. du ma tudd ki nga xam ne mi ngi fii di reboiser di def tali Guinguinéo yëpp di kii ay garabam parce que bu mu ko fi tuddee danañ ne kii day far tey mais am na ay nit yoo xam ne moom xëy na moom mu ngi ci mais ñeneen yaa ngi ci wàllu éducation yi tamit euh, Zakaria Sall suñu papa Zakaria Sall astafurla suñu papa Zakaria Sall bëri na ay doomu Guinguinéo yoo xam ne jël na leen ci wàllu formation professionnelle moom moo nekk CNQP euh, égalité par quartier programme bi bu ñu demee ba xëy na gën leen ko fësal di ngeen gis de koñ bu nekk daf ci am wàllam parce que man dama gëm né quartier xam nga développement national ci commune yi lay jógee waye développement commune ci quartier yi lay jógee quartier bu nek dañu wara identifier lan moy sa force ak sa faiblesse lan moy sa ressource naturelle ak sa ressource humaine ñan ñoo nek ci bir koñ bi ñan ñoo ci ay artisans ñan ñoo ci ay commerçants mais xam tamit lan moy difficulté yi nga xamné ñi nek commerçants yeeg artisans yi ci bir koñ gi ñi ngi koy vivre